salaamaaleykum na ngeen def ak coono am ngeen jàmm euh, gis nga yéen patriotes yi patriotes yi euh, man xaw ma lu tax ngeen xaw a gaaw a euh, xaw ma découragé la xaw ma déstabilisé wu lan la fii lu fi ñor ban koy màcc dama ni man xëri li ma gëm mooy man li ma gëm mooy ba suba la ñuy voté Ousmane Sonko day bokk. <laughs> déggoo leen ma de jox leen ma nopp yu baax ngir yàlla ak yonent bi eh, li gëm mooy ba suba la layam layam dem di vote ji Ousmane Sonko day bokk déggoo ma de maanaam man fi ma ko wékk mooy Khalifa Sall fu mu bokkee Karim Wade bokk ak keneen bokk sa waay Ousmane Sonko day bokk alali Jambour gisuma kum fi tere rendi ko ah defu fi luñ ko lu lu ko lu ko kenn lu ko waay yow waay sa waay yéen nag ah na leen def ak coono mbaa kenn yabu leen sa waay yépp xam na ni mu demee li ma leen waxoon rek nee naa leen lépp politique la layam layam yi politique la c'est la politique langue politique la ni demee. Ayy daknen baysenan, daknen baysenan, konye de layem layem nan no si. No men, daknen baysenan, baysenan konye kot daknen yon. Ha? Ha? Ba adnè sou sou gulèk, baysenan, baysenan, reklonj mwazan dak. Davani ba adnè sou sou gulèk, dak baysenan, donklonj mwazan dak. Adnè yalak mwom. Hey, adnè yalak mwom, davani. Bayson kon layem layem, ba pale 2024. Nè yon defektyon, ba kèd yabou, de khanan loulou lèr nan. Ha? bay Aada ah, Cheikh bu ma ya? day day arrière iya, am bato costé ko yàpp ci Sénégalais génné génn réew bi boobu mooy dàq bu gaaw bi wayé fekk ñu ngi dund suñ carte électeur yi dund Ousmane Sonko sera candidat té day layam layam bi dem palais man dé li la wax kenen lu wax lénen sama ngañ ci yow nak Ousmane Sonko est eh, seul et unique notre choix dans ce pays gay yi neex ba man xëri ma layam layam yi war a def mo keji, ci wala ñu naan wah c'est que ah ni muy def vidéo yi di ré layam layam mi dama ne la àdduna lepp teraanga la lepp ci ay ré lay muju déggoo ma de xam nga mbir mi lan la maa la ëpp doole dama lay duma daan la yaa nax sa bop yalla suñu borom képp mo am doole te dudul yalla yàlla nen na lu dul la ginaaru kenn nenuñu ñu sàkk loo ñu ñu déré dund xana neex adna ah, yalla ko mom bàyyi leen bu dox ngeen layam lay mi di décourager góor yalla du décourager découragé waxuma la ak patriote nag xuloowuñu xeexuñu saagawuñu kenn waye dama ni Ousmane Sonko man lima ma gëm mooy day bok ta da wara bok te man gisuma lu ko tee mën dem élection xana ku ne am nga ci droit wa wax deug yalla nak rew mi la wax deug yalla nak yalla mi ñu sakk mom rew mi kenn moomu rew mi rew mi du rewum kenn ñun ñëpp dañoo judd fekk fi Sénégal kan moo créé Sénégal kan moo créé Sénégal laa wax kan moo créé Sénégal ñun ñëpp dañoo laayam laayam bi fekk fi Sénégal waaye bàyyi leen ma ngeen naan ma géej gi yàqu la ñun ñëpp xam na ne la terre est tout rond <laughs> waaye layam layam laay c'est que amul lu ñuy bàyyi wala lu ñuy mais dañuy dem élection ci fair play ci fair play nag ci dëgg ak ci yoon dañuy dem élection kon amul lenn loo xam ni ay stratégie la yu nit ñi teg nangam sàngam léegi dàq nañ Baye Sena dàq nañ diw ñun Baye Sena liggéeyam la doon def rek ba ndox fekk ko ci léegi nag li ci des ay détails la na moom yàllaa ko moom te réew mi santul Diop santul Fall de ah te santul Seck njaay ji ko sénégalais sant la sax santul njaay réew mi réewum yàlla la bu neexoon yàlla tey tey tey da koy lem ba mbaax teg ko ne voilà àdduna yàllaa ko moom fii lépp xolal ay détail la ñun ñëpp xam nan li nga xam ni moo xew waaye yow xamoo li xew man xam naa li xew keneen ak keneen xam na li xew li fi xew mooy maanaam maa la man maa la ëpp doole dinaa la doon duma la daan la loolu mooy leneen lu fi xew neen def ak leneen lu fi xew leneen lu fi xew dul lii leneen lu fi xew lu dul lii ñun ñëpp waxuma la Sénégal waaye àdduna àdduna ñoo lëfër lëfëri d'accord ni Seydina Ousmane mu sell bu demee élection onze heures onze heures et demi nga ni dañuy tëj gise ñoo ko d'accord Sénégal soo ko d'accord kon ku mel noonu bu amee cim réew te arrangé wul kenn daraam du yomb déggoo leen ma de daraam mënta yomb Ousmane daraam mënta yomb daraam mënta yomb comme daraam du yomb nag ku ci nekk am nga loo gëm yow mii di ma seetaan gëm nga ni Baye Aly Sène yi des pare keneen di ma seetaan gëm ni Baye Amadou Baye doon président man yi man li ma gëm mooy Ousmane Sonko sera le président et le cinquième président du Sénégal waaw ah, xanaa nag doo gëm li nga gëm bañ man ma gëm li ma gëm te ñun buñ ko bëggee day am ci fair play nag <laughs> àdduna yàllaa ko moom hee àdduna yàllaa ko moom maa man maa ëpp doole xewul tey jamono yenent ba tey maa man maa ëpp doole nga layam layame ci àdduna bi yàllaa ñu bind sàkku ba pare na xolal nit ci yàlla nag man a seetaan bay bëgg a dee li yàlla loolu maanaam àdduna war ngel këpp bu la nee ku dàq seetaan neel kun fayakun moo dàq seetaan ñépp gaa yi ngi naan wéy tubaab yi dañoo mën a seetaan américain dañoo mën a seetaan lan la ci nangam wax kenn du yàlla yàlla dàq seetaan ñépp moom mi la bind xam li ngay def xam li ngay wax bala ngaa xalaat xam ne li nga nar a ah, moom mi lay xalaat loo xam xam xam li xew ah segam moo lay seetaan Sénégal àdduna yàllaa ko moom de lépp dañ koy régler ci fair play ñu xeexuñu nag waaye nag ginaaru kenn nenuñu nous sommes tous des sénégalais waam yéen da ngeen a yor carte d'identité bu mauritanien wala bu malien wala wala bu ñàkku rabien lan la ah ay Ousmane Sonko wéy instant bi comme instant bi monsieur le xaw ma Sénat bo eh, booy yow lan mooy monsieur le Sénat bokkatul monsieur le Sénat bu ko dàqee moom lañ mujjee dàq ñaata doomu aadama ñooy xëy di liggéey xëy xëy xëy ñun la bu subaa bul xëy ñaata doomu aadama daa xew tey ba muy xew man fi laa ko fekk man te kii dàqeet ki la ko fekk kon àdduna lépp teranga la waaye nag Sénégal a neex Sénégal a neex man boo fàttalikoo sama yaram ndaw ma jooy barke yow ma ko jël basar am na ñu ngi soo xamante ne fi la layam layam ba ci sëñ baala rek naan ko waxal lay wàdd bu ma tëj waaw lay waay bu ma tëj ndax ma ñëw ma kaso Sénégal a am na ci waa joo xamante ne noonu def waxal lay lay waat bu ma tëj quoi parce que man ñëw ma kaso ñëw ma kaso quoi ñu <laughs> ne nii nag mooy tëjee waaye nag xoolal Sénégal amul bayi, amul décourager amul layam layam yi rew mi réewum démocratie la man da sama indépendance bop la yor te kenn du ko xagn man sama démocratie bop la yor de ku amul démocratie nak lol sa affaire la ku wutul ku sa bop démocratie ak ah, sa affaire la ak ak yelef mom man lima ci mom nako jël leneen li ci mom nak ko jox leneen lu ci nit mom fobal waye eh, man li nga xamante mom la mom tam warma ma am ci droit diko def ah wax deug yalla dama koy jël ba <laughs> am nen buñ ko bokkee kenn du ko omelette dañ koy mayonnaise waaw réew mi du réewum kenn réew mi du réewum kenn ciow man na bari wax bari waye barke yow mal kuloo jël basar Ousmane Sonko sera candidat man de li la gëm waaye focus leen ngeen di layam layam di décourager ni ak di baye ak di seega setaan di du ngeen focus lan la Ousmane Sonko ñun mo nañu woon Ousmane Sonko man Ousmane Sonko amul lenn loo xam ni tey jii maanaam man na maa tee doon candidat Ousmane Sonko daa génnaat ni leen du candidat Ousmane Sonko daa génnaat ni leen du ma bokk waaw waaw du ngeen ko déglu nag ah nit dangay ngay jëfe ndigal waay jëfe leen ndigal waay yi ah ab taalibe day day jëfe ndigal sëñ bi dañu woon man mii usmaan Ousmane gisuma lu may tee bokk ñun bi yëpp ñu d'accord ni sëñ bi day bokk sëñ bi daa génnaat ni la ni du bokk waaye ndigal waay yi ngeen di layam layame noonu ak di yàqu concentration di désactiver sama bultuuf nii <laughs> waay yooyu